ay armement par rapport au matériel militaire je les ateliers centraux du chemin de fer ñoo ko daan defal calèche yi ngeen gis ni voitures yi ñoo ko daan defar la première ganne imprimerie imprimerie bu Sénégal bu chemin de fer la jóge le premier centre informatique ABM premier service chemin de fer la jóge donc xarañ nañ xarañ goo xam ni le chemin de fer a la capacité d'avoir tous les corps de métier les premiers maçons ça peut être même paradoxal le premier garage central automobile chemin de fer la nekk donc métiers yi gën a xarañ ñu fi nekk nii chemin de fer moo daan fournir table banc école Sénégal yëpp moo fournir cahier daan jox ay bourses d'études moo fi njëkk am service médical dispensaire du dépôt coopérative béy bii ñoo ko fi njëkk a def waaw centrale d'achat coopérative d'achat de consommation donc c'est pour vous dire que en a mot comme en mille mots dafaayu chemin de fer moom. moom moom lépp ngi ci lépp lépp lépp ngi ci ci kaw nga suuxat ko boo ko suuxatulul doo dem feneen du dem xoolal ceeb bi gars yi wax naan ci la vallée fële au fleuve nu muy mën a demee ceeb bi ceeb bi mun ko nooy béyee di du fleuve autosuffisant alimentaire ku koy transporté du chameau du gëléem du gëléem du gëléem du du oto du bato Casamance soo xoolee euh, euh, bu kii yaa ngi ñu ngi wadd ci suuf. munoo mango yi munoo jaar Casamance te te te te dëgguloo dëgg dëgguloo fruit dëgguloo ki kii amuloo loo dëgg or xam ngeen ni mango li muy jar bitim réew waxatuma laa nag maintenant beneen li tubaab di wax naan dimension sociale brassage bi chemin de fer xam nga fu ñu dem takk fa jabar bu ngeen xoolee sud du Casamance bu ngeen xoolee nooru nooru nooru Mali ak waa waa Tombouctou waa Gao Tamashek seen biir rek la ñuy sëy waa Sénégal lañ leen dox ak waa Mali. parce que chemin de fer amu fa chemin de fer dafay régler yooyu loolu moo tax sow yi nekk Sidibé moo tax Traoré yi nekk Diop Jare yi nekk Ndiaye Guèye yi nekk Sissoko Fall Koulibaly chemin de fer rek moo mën loolu boo demee Australie la nation australienne li tax mu nekk nation ñi si am na ñoo xam daaw ñu sol yére ñi tuddee peuple aborigène munta waaw munta nekk loolu chemin de fer am na kam kii kii boobu waaw Bambara fii Bambara lañ ko daan Bambara Thiès chemin de fer la ko créé Xombol Gossas Guinguinéo Birkilane dëkk yi am Sénégal yëpp waaw moom li tubaab di wax naan du ville moo mooy créé train train mooy créé ville saxaar mooy mooy mooy suuqat dëkk. am na benn camarade bu wax foofu ne système ci soo xoolee bi ñuy indépendance sept régions moo fi amoon six yëpp chemin de fer dafa doon jaar sauf Casamance aujourd'hui ñu nge quatorze régions fukk ak ñeent. juróom la chemin de fer di jàll te ci juróom yi ligne droite la dakaar ba bama ko loolu dafa yéeme Dakar ba Tamba des yëpp chemin de fer dañ koo bàyyi ginnaaw ba pare da ngay développer pays bi di wax ay TR à partir de Diamniadio waaw chemin de fer kenn du ko adossé ci aéroport loolu wul ne clientèle aéroport bi chemin de fer du àgg ba aéroport mais munoo basé wu clientèle wu chemin de fer ci ab aéroport munoo basé wu création ville ba pare ni teg ci création train mënut nekk. xaalis boobu bu ñu ko defoon ci corridor bi def ko ci maillage territoire national bi moom moom mooy kii mais ñeneen ñooy wax suñu tur loo ci man mais lu dul dëgg du yàgg. waaw man de góoma baax na man waaw chemin daal góoma ni mën ko man contre ma privatisation en général mais chemin de fer man pour man kenn du ko privatiser kenn waru ko privatiser man question souveraineté nationale la moyens yi ci laaj ab privé du ko def mukk moyens li chemin de fer laaj euh, voie un kilomètre de voie c'est presque des centaines des centaines de milliers de francs ban privé moo koy def du la ko defal contrat yi ñu si woon ak canadien yeeg ñi euh, belge yeeg français yëpp respecté wuñ ci dara di ñëw rek pour yóbbu taat kii parce que euh, investissement chemin de fer dafa lourd dafa dafa diis ku koy defar ñu rek ñoo ko mën defar seen bopp yow sa kër ku la koy tabaxal waaw kan moo la koy tabaxal. donte ne say waajur nga am sax duñ la ko kii buñ la ko defal xanaa loo doon mais après ku koy suuxat yow yaa koy suuxat ku la joxal sa dépense takkal la jabar jabaleel la ko fu mu mës a ne amul fenn Sénégal rek la am chemin de fer nag noonu la mel privé chemin de fer kenn mënu ko privatiser mënut a ne parce que investissement yi ci nekk dafa lourd volonté politique la buñ ko bëggee xaalis bi diñ ko am xaalis bi ñuy génne rek ñaata la autoroute Ila Touba boobu buñ ko defoon chemin de fer Ila Touba mooy gën junni yoon mooy gën junni yoon laa la wax. du benn sax du benn du benn du benn du dafa yéeme loolu xaalis bi ñuy def di ko passar pasare ci affaire culturelle beeg man contre ma yooyu affaire mais nag euh, bala nga ne naam ne fa. waaw bala ngay topp yooyu yooyu day fekk sa biir dara nekk ci saako du taxaw te dara newu fa loolu mooy li wóor mais chemin privatisé benn réussite si dans le monde benn benn ah, chemin de fer anglais chemin de fer yi gën a réussir au monde mooy kañ chemin de fer nationaux yi canadien national au Canada c'est le premier chemin de fer du monde canadien national la tudd ba deen xam ka ko doon jiite 1964 dafa dugg comme manœuvre huilier wagoñee huilier en 2000 il est devenu président ca veut dire que quand on entre dans un chemin de fer comme un planton, comme disent les Américains, donc tu auras gagné comme un directeur général. Le chemin de fer, un plan de carrière cohérent et dynamique, évolutif du, personnel. Parce que l'exploitation ferroviaire, comme nous l'avons dit, elle est précise ou ne l'est pas. Donc, la chemin de fer, la ce qu'il y a munoo doo yooyu yooyu yëpp amul exploitation précise amul ci benn industrie l' exploitation ferroviaire elle est précise la alors elle est précise ou ne l' da ngay fixer objectif de production ne 45 000 tonnes lay def 50 000 tonnes lay def par mois loolu da nga koy décliner plan stratégique boobu par un par li ñuy plan de transport plan de transport bi dafay am l'état de la voie pour nga xam ñaata kilomètres lay saxaar gi daw par disponibilité des wagons approvisionnement matériel bi ci war a dem ak li ci mujj nag mooy le plan de développement des ressources humaines parce que les ressources humaines ferroviaires doo ko jàng ci école yi ingénieur bi gën a ngand bu fi deful deux ans trois ans du xam dara. te xanaa fo béréb boo fay nekk di xullee pendant fukki at sax xanaa di fa am lu kenn xamul te ci ñun amul kenn ku ci am moins de vingt cinq ans de carrière xanaa bu ñu fa doon xullee sax dañ am lu ñu xam te junni ay cuune nag fi gars yi jàngale ñu jàngee ah contrairement ak ñoom li ñu ñu jàngale ñu jàngee waaw bac bu njëkk ba la ñu am comme ñoom université yi ñu jàngale ñu jàngee yàlla dogal ñu jëm chemin de fer parce que pour ñun ay choix politique la woon c'est mais ça ne signifie pas que ay médiocre fa nekk wala ñu amul xam-xam dañu cee boolewul la Latjoor nag nee na Kajoor ku bëri ñu ko lekk bàyyi ko mais ñu ko wax ba ko comme baawuñu ci ñun tam ñu jàpp suñu parce que man j'ai le pouvoir de ma terre waaw Cheikh Tidiane Sow waaw Spinoza benn philosophe du mag daf doon wax ni que il a le pouvoir de sa terre dans les moments de conflit ñii nag wala de kii la parole est un acte mais moi j'ai le ma terre longtemps je me suis tu pour doon ñi ma bool ci ñii du ma ci dugg may noppi may noppi parce que mënu maa nekk révolutionnaire à plus de 60 ans t'es révolutionnaire à 15 ans 18 ans 20 ans professionnel waaw te mënuma kaa continuer di nekk samay at ma ko waaw faut mais nag luy jot dafa jot affaire yi dafa dafa yéeme daal sama defee duñ ko fooye du lu ñu du ay slogan quoi du ay slogan plan Sénégal émergent train express rapide régional yooyu c'est du toc waaw parce que ña koy defar xamuñu xamuñu dara ci chemin de fer c'est du toc nan nga mën a baser chemin de fer à partir de la d'un aéroport sa kuy dugg aéroport da ngay dem pour pour pour mission kuy jël avion mission ngay jëm boo jëmul mission da ngay blanchir xaalis wala ngay jaay drogue wala nga diine tax laa jóg wala ngay yóbbu jigéen bitim réew loolu dong nga tax nit di tukki kuy jël avion keneen kooku dina jóge ci avion bi ñoo naan da ngay dugg sa xaat ñu di la gis loolu dafa yenu maana nga bëgg a basé cent quinze mille voyageurs par jour à partir de l' aéroport moo tax on n'adosse pas un chemin de fer à un aéroport c' est pas ce n'est pas le, le, la ville qui va créer le train, c'est le train qui va créer la ville. Alors, Kouli Al,